na solo la ke du ko yek billahi tagal la ndeysaan je sais pas je sais pas ban fan la wax bi jógee nan la bàyyi di créé wax bi ak nan la demé parce que heure bi daana fekk ma dënd parce que damay yeewu fajar dëgg la je peux même pas dormir je suis dans ma chambre comme ça si sama fauteuil la toog nii sama jabar elle est en train de pleurer mu ci salle bi mhm dafa metti dëgg la parce que jamono yi yëpp li daal suñu kaw dafa bari dëgg la ñu toog suñu biir kër toog jàpp suñu ñàmbur mais là ça n'est de trop ça n'est de trop waaye li tooñ nga ma sama papa nga mais tooñ nga ma tooñ nga ma trop tooñ nga ma trop tooñ nga ma trop waaye li tooñ nga ma trop trop trop trop fifi tooñ bu fekkee bu fekkee wax naa bàyyi jëli ni ah. ko man maa wax ni da nga dee bu fekkee wax naa ko loolu ah yàlla musiba yàlla wàcc sama kaw déedéet déedéet loolu moom déglul taalibe cheikh laa jullit laa damay woor damay jaamu yàlla du ma tooñ man xanaa tayaat may tayaat ñu naan dafa ëppal dafay def gros mot dafay nangam te loolu defuma ko pour blesser kenn du ma tooñ mm-hmm. ma tooñ nit ñi xam ko mm-hmm. man du ma tooñ mais bu ma bu ma fekkee man bàyyi jëli ci téléphone am moom bu mm-hmm. jëlee kaamir teg ci ni saaneex moo a wax ni man maa wër di ko wax et puis li wax moo garaaw xam nga li mu wax dafa ni li ma dégloo guddi bi dafa ni gars ay ay doom raam lañ. waaw dama dégg saaga bi. Mm-hmm. waaw dafa saaga. Mm-hmm. kon man am na fu ma kañ am na fu ma teg bàyyi eli bu génnaatee. Mm-hmm. wax ni saa neex moo ma wax ci gémmiñam ak sama nopp ni man maa wër di wax ni danga dee. yàlla musiba yàlla wàcc sama kaw ba Sénégal yëpp teg ci seen bëj. parce que dama ni woon sama àdduna dinaa def sama carrière théâtrale ba mu jeex tàkk. te doo demanteer kenn du mm-hmm. kenn du ma du ma wax kenn lu ma waay wax muñ naa ko. mais je peux pas laisser partir. Mm-hmm. je peux pas. Mm-hmm. sama xarit sama jabar xaritam yi. suñu téléphone yaa ngi sonné à trois heures à trois heures du matin. waaye Eli tooñ na ma. nan laay jàkkaarloog nit di ko wax ni man maa wax ni da nga dee et puis ku toll ni bàyyi eli emblème suñu emblème suñu ñun ñun ñun mais gars yi gars yi ñoo ngi message ñu ngi naan nga bàyyi bu sedd que ni ñoom ñoo ngi sa ginnaaw je affaire bi daf ko dem ci site internet yëpp je peux pas dinaa dem ci site internet yëpp ba sama rendez-vous yëpp dama koy cancel je vais prendre ma voiture dinaa dem ci site internet yëpp parce que c'est grave. dëgg la. ñu ngi may envoyé yeneen audio yoo xam ne ay nit ñi nga am yeneen yu ciy wax yoo xam ni comprendre luñu parce que dañu nekk ci réew moo xam ne tamit wax nañ dëgg bu ñu déggee lu soxor ñenn ñi seen xol dafay dafay dafay sot mhm. seen xol sotee du ñu xam lu ñu war a wax ak li ñu warul wax. dëgg la li seen xol jëkkat wax jot rek la ñuy wax te mënoo tontu ku nekk. mënoo fee nekk di tontu ku nekk fii fii. dëgg la mënul ne. je suis d' accord munoo mhm. ko. d' accord d' accord barki barki salaatul faatiha. Mhm. yàlla bu ma ci sa teg yonent bi. Mhm. lu ma woor yàlla bu ko sunu borom nangu. illaahi wallahi taalaahi ma bàyyi di dara. papa yaa ngi tane maa ngi tane tànk beeg loxo bi yàlla na yàlla bëgg sa bopp man de sama jabar moo ma wan ni affaire yi mu ni ma du dëgg maa ngi nii toog. c'est ça. Mm-hmm. après man nan laay demee di wax bàyyi fii man maa wër ni di wax ni da nga da nga da nga dee. fifi li ma lekk mi ngi billaahi li ma lekk.